bajaxte akidi sax tidiandaw melani ren tawaski koso lendi fek ginawo just vi dogol dadilé de connene taw 3 mois de prison ferme andam pay buñu khayma le taw 100 000 francs CFA lan moo xew réellement loolu la ñuy essayer de découvrir pas Padiarter ak ah, Imam Cheikh Tidiane Ndao ñoom ñaar dañoo defoon face à des accusations de diffusion de fausses nouvelles et offense au premier ministre lépp ngi jugee si kii di Badiarter ginnaaw moom génnee benn vidéo di accuser kii di Ousmane Sonko dafay entretenir ay relation moom ak yeneen i góor. mbirum góor jigéen Sonko ba ko mbirum góor jigéen bako bako ngir yàlla parce que da nga ay góor bañ an interne leen hôpital nga sëyeeg ay jigéen ba ñu jiiñ la sodomi kanta kii di seex Tidiane Ndao nag moom nag dafa def benn enregistrement audio lii ñuy tuddee ak nguur jigéen dañ koo teg ci deram ndax Adji Sarr ci boppam moo wax ne Sonko doon na sëyeeg moom ci ginnaaw tuumaal ko ci wax ne lu mu bëgg la ndax moom la daan def ak moom kon bu fekkee tuuma boobu dal na Sonko mu di kilifa war na mën a moytu nag ndax ku ñuy jiiñ socho guddi doo soccoo yeelu gone kon bu fekkee ne tuuma bi tegu na ci kawam ma déggaat ku wax baa jaxate ndef waxtaan ne lii may wax bu dul na ma sonko porte plainte ginnaaw ba ñeen àttee nag ñoom ñaan ñëpp daanaka condamné nañ leen du toll si trois mois de prison ferme à cent mille francs yoo xamante ne ko war a fay comme ndàmpaay loolu su weesoo nag kii di Bah de génnagul si mbiri parce que jamono ji mu ngi garde la vie li waral lool moo kii li Ababacar porte plainte contre moom ci ben de benn publication ba jaxat di defoon dafay def ay accusation yu grave contre kii di Babacar Mboup ku ànd sàmm jikko yi am na yeneen plainte yoo xamante ne daanaka dugg nañ ci kawam comme li di famille fa Fulbert Sambou ñoom it plainte nañ ko mbir mi nag ni, nii ñoo ngi leen laaj seen xalaat si mbir mi ana na ngeen gisee seen condamnation yéen ñaar vous êtes pour ou contre jox leen ko à travers le commentaire bu leen fàtte abonné wu pa partage vidéo bi euh, ñu ngi leen di bàyyi ak ni vidéo sur ce ñoo ngi waxante ba beneen sur Dakar. Dakar